ñoo ñëwoon tey doon siyaara si xitma di indi suñu addiya si ànd ak ñoom si xeex fagaru jàngoro ji ñun waa association des opérateurs de développement économique de tubaa ñu di ko wax ADOP tama si bopp bi di xam Mouhamed Ndiaye doon njiit bi ma àndoon ak sama mbokki taalibe yi ginnaaw bi dee tënk ko ci kuréel doogu ñu wax ADOP ba pare dañoo nekk nag doomu dëkk bi di ay taalibe loolu waral ñu sàkkoon ci suñu kees addi joo xam ne dañ ko fi indi ñu ko fi taalibe yëpp defee ndax comme ci dëkk lañ dëkk lu dëkk bi jaar na kon luñ ci yëngatu suñu loxo saa bokk xanaa waaj bi moo xaw yeex ba nëgal rek waaye suñu sañoon kenn dañ ko defe woon daaw ci Tuubaa sa kanam def ko suñu digganteeg sëñ bi ñu dénkoon du karim yi ni man ànd ak moom ci liggéey bi ginnaaw bi mu bokkee ci bokk ba pare noo bokk moom liggéey bi loolu moo waral teewaayam ànd ak waa bureau bi ñu ma ànd ak ñoom ñëpp ngi nii dañ ko def ab tàmbali di fas yéene ànd ak yéen liggéey bi ñu dem ci wàllu koor geek lépp loo xam daal ñu ko fi def tam tënku si bërëb bi te bi laaj ko euh, métier bi moom profession la boo xam ne dañu see fekk waaye nag dëkk yi doon ay taalibe ak i donga moo nu gën a moo nu ñor moo tax ñu débale ko woon 11 millions suñu kees leen dañ koo def ceeb euh, lenn ñu def ko sec verse ko ci compte trésor jàppale bi li ci des itam ñu jox ko dongo yi suñu daara yi mën see jàppale dongo yi li ci des moom lañ indi fii ci xitma gi di sàkku ngeen ñaanal nu saa def nu ay mag suñ bañ génn ci ndigal sëñ bi loolu moom suñu tànk yox bu laat loolu moom yëkkati woon bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah aoudu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñuy jébbal ak suñu jaayante ci xaadimu rasuuli radiyallahu anhu ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool ba li mun naa la liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp mu defe ko nu kawe njortam te ànd ko njaboot gi yëpp ak taalibe yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol Sëriñ Abdul Ahad mu jàllale ko ci mbokk yi fett yëpp ci turu association bi nga xam ne comme ni ko Mouhamed waxee léegi rek des opérateurs pour le développement économique de Touba ADOP euh, rawatina ñu gën a yëngu ci wàllu secteur yi nga xam ne mooy wàllu gerte euh, daanaka ni mu ko waxee rek la ci ëpp solo mooy di doomi dëkk bi bokk ci dëkk bi di taalibe moo waral tànk yi mu mel ne ñëw gi ñetti mbir rek moo ko waral mooy at taawunu kama qaala subhanahu wa taala wa taawunu ala al birri wa taqwa wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kon loolu di benn kon solidarité bokk na ci li gën a yëkkati tànk yi la ci des itam mooy al infaq fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka la ca toppaat mooy prévention te loolu feeñ na ci aaya bi mooy al infaq ak al wiqaaya ak at kon ñett yooyu sëriñ bi teg ko ci kaw taali bi nag moo waral kàddu yi ak jataay bi nga xam ne amee nañu ko tey yaakaar naa président wax na lim yeeg quantité bi daanaka amul solo ñu ciy jaaraat waaye daal ngeen xam ne dañoo ñëw ngir masawu leen jàppale leen ci liggéey bi ndaxit it ñëpp rafetlu nañ coono yi ngeen def te lépp ngeen koy def ngir Cheikhul Khadim li wajhillahi taala al karim loolu moom ñëpp apprécié nañ seen liggéey moo tax it fu ngeen gëstoo incha allah da ngeen di gis seen wet comme ni mu ko waxee léegi rek ab tàmbali la rek waaye koor geeg lu dul lépp ndimbal lu ngeen nekk ci dëkk bi la ñuy lu ñu am it dëkk bee ñu ko may ci kaw xéewali Serigne Touba yi nga xam ne ci lañ nekk kon nag duñ bañal dara Serigne Touba duñ bañal dara dëkkub Serigne Touba bi am murid nag yaakaar naa tabe da ko war ndax Serigne Touba bu demee ba ne wajaal yamini ka saxaabin fii saqa maymunatan fi shiddatin wa fi raxa yaakaar naa toll lañ ci waxtu shidda kon jàppaloo àndandoo yaakaar naa moo war ñëpp waaye nag bay ci sawewu tànk te jàpp na ne lii ngeen def liggéey bi ngeen def dara jiitu ko ci dëkk moo tax lu ñu man def yéen lañ koy tàmbalee te it ñu duñu bàyyi fu ngeen ñu fëggee rek incha allahu taala ñu ngi seen ginnaaw euh, te ngeen ñaanal mbooloo ñi nga xam ne ñoom lañ àndal bëgg nañ dëkk bi ñu ngi taxaw jëm di jëm a développé dëkk bi di créer ay emploi ngeen ñaanal leen ba seen mbir euh, seen wërsëg mën a barkeel loolu ñu ngi koy dagaan ci yéen ci barab bu tedd bi yi nga xam ne fi ngeen féete kon nag ñu ngi lancé tamit mbokki taalibe yi dégg yépp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 sëriñ Mouhamad ñu ngi lay nuyu nuyu bokk yu baax yi nga àndal te buñ ñu tuddee kilifa bu mag bi di sëriñ Abdul Karim tuddaale nañ ñëpp ñi fi teew ñëpp xam ne nañ leen ñi ca des itam ñu ci bari xam nañ leen waaye jàpp naa ne bu ñu tuddee aw turam moom dina mën a yóbbaale ñëpp kon sëriñ bi ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di leen delloo itam ziyaara bu baax ci barab bu tedd bi nga xam ne xëy si ngeen fi tey jii ñëwee ki tànk yu am solo yi ngeen fi ñëwee te nga wax ko léegi muy tànk taawun alal birri wa taqwa te mooy dimbalante ci lu baax ak ku ragal yàlla te jàpp naa ne barab bii loolu rek mooy li ko tax a jóg te Sëriñ Tuubaa itam ite woo woon ko lool wax fi itam loo xam ne mosuñoo gis fenn fu ko wax te mooy ku ci feeñ dana feeñ ba faw ku ci nëbb itam wala asbillah dana nëbb ko faw loolu tax na murit bu nekk itteem ak yéeneem mooy feeñ te loolu itam lu ñu teg suñu bët la ku ci mas a feeñ ba mu tàmbalee ba nëgëni bokkul ak këcca feeñutoon te nu ci waay mas a taxawee itam feeñ na ci aw doxinam kon loolu wan nañu ne waxi Sëriñ Tuubaa joojee lu dëggu la te li ñu weesu ni ñu ko gisee nattablewuñu ne lu ci seen kanam moo ko raw kon tey su ngeen jógee tàmbalee fi ab liggéey seen xel war naa dal seen jort war naa rafet ci ne barab bii lépp lu fa ay tàmbalee barke rek moo ciy mën a wàcc barke rek moo ciy mën a dolli ñu ngi del di delloo nag ak cant cant giit it euh, dañuy faral di wax ni sax la shukran alal waajib waaye ah kay ndax bari na koo xam ne dara war na ko mu man koy itam te def ko kon ki dara war mu def ko nangu ko def ko wax dëgg yàlla yaayoon ak cant mooy li wolof di wax naan àll motita nawe ak mat axa kay ndax bari na àll ne moom yoo xam ne waroon nañoo am mat te amuñu mat kon nag bu àll amee mat mënees caa jariñu warees na ko koo nawe kon ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bu rafet bi ngeen taxaw ci yëg bi ngeen yëg ni njabootu Sëriñ Tuubaa ngeen boo xam ne ci biiram ngeen léppe ci ngeen feeñi ci biiram itam ngeen yëngutoo ci aw wërsëgam itam ci leneen yàlla di wërsëgale ngeen am ngeen delloowaat loolu lépp ci Sëriñ Tuubaa loolu warees na leen sant waaye yéen war ngeen santaat Sëriñ Tuubaa bu baax a baax a baax ndax bari na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi yëngatu di am dara waaye ci am po lañ koy jeexal ak ci caaxaan kon su leen yàlla dimbalee ba ngeen nekk foo xam ne xam yéen yàlla dimbale neen ba fi ngeen nekk xamu leen fo xamu leen caaxaan li ngeen xam mooy liggéey ak jaamu yàlla loolu lu mat a sant yàlla la ci jamono toll kon nag euh, ñu ngi leen ci sant bu baax di leen sant la yàlla di leen sant la itam Sëriñ Tuubaa rafet rafetlu itam yëg jéego yu am solo ñi nga xam ni ne ci ngeen ko si ko fii tey jii ci liggéey bi nga xam ni ñoo ko bokk ndax bari na ñu nekk fii di fi liggéey ñoo xam ne ñu nga foofee employé yooyu ngeen di wax te la ñu bokk bari na fi jóge xëy si ajjuma dañuy dagg seen liggéey ñëw liggéey si leen soxlaa dañuy dagg seen liggéey buñ fi jógee it foofu la ñuy ñëwaat di fuur seen dépasse te loolu su fi amutoon it mën naa am dañ koy jéggaani feneen kon taxawaay yooyu nga xam ne taxaw ngeen ko te feneen fu ñu ko mën di jéggaan yi itam amee ko ci biir njabootu Sëñ Tuubaa bu boppam gi nga xam ne ñooy waa dëkk bi bokk ak ñoom ay jikko ñu bokk ak ñoom ay jikko bokk ak ñoom ay bëgg-bëgg jàpp naa ne loola mooy li gën kon li ñuy def mooy ñaan yàlla mi nga xam ne dara tawu ko ci barke Sëñ Tuubaa mi nga xam ne may na ko lépp lu baax te mu te te mu bind ko suñ borom yokk seeni xéewal te barkeel ko ndax bari le am na solo lool waaye barke mooy li ëpp solo lu mbir bari bari bari bari bu ca barke dugg njariñ du ca am waaye lu néew lu mbir néew néew néew bu ca barke duggee mën naa sakkat ba gën a bari la bari kon yàlla na yàlla na suñu borom mi nga xam ne dara tëw ko def muy xéewal yu bari ba noppi nag barkeel ci barkeeb Serigne Touba loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ leen di jot li ci turu Serigne Afia Bousso ak turu euh, mboolem bureau daayira Moukhaddamatoul Khidma Serigne Abdoul Ahad Bousso mi ak sëñ Maxtaar Kan ak sëñ Fallu Mbàkke teewal leen fi ak man bii di wax ak yéen ñu ñaan suñ borom mu musal ñu ci tawat yi nga xam ne lëmb ne àdduna bépp ba jóge fi ba set wecc dañ ba jeex takk ci àdduna si te ñun ñëpp ñu mucc ci suñu njaboot mucc ci te suñ borom raxasal ñu ci suñuy bàkkaar moom set wecc dollil ñu ci suñuy xeewal itam nattu nag mun da ñàkk waaye nañ gëm ni fu mu dikkee rek yokk moo cay teg bu fekkee jullit bi muñ na ko te rafetal ak muñ muñ gi nag moom nattab lañu ko rafetal gi muy jëf yu am solo yi nga xam ni ñu ngi koy def te mooy dimbalante bi nga xam ne ñu koy dimbalante ci luy fekk mm, natt bi di ko dimbalante itam ci luy dimbale nit mi ba ñu mën a jàll ci jafe-jafe yi ñu nekk kon su ngeen ci taxawee noonu di dimbale nit ñi ci wàllu li leen di taxa li leen di aar muy cet gi leen dimbale itam ci luñ mën di mos ba mën a jàll loolu ba ma des na cee rafet njort lool ci li nga waxoon léegi nga xam ne la yàlla diggoon rek moo ci tege ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu